waxee Olivier Bocal mi nga xam ne rek mooy jëwriñ ju ñu dénk wàllu fonction publique nag moom ma ngay xam ne ni lu ñu mel daal dafa mel ni wokkatuwu tase gestu ndax action yi nga xam ne rek moom la di def la ci ëpp la tënku te mooy nag fexe suqaliwaat koom gi fii ci réewu Sénégal des entreprises du Sénégal MEDES démb la doon amal ñaar fukk ak ñetteelu assise économique annuelle yi nga xam ne rek thème bii lañ ca doon waxtaanee mu di développement économique endogène ca ndaje moomee nag ci la njiital MEDES di Mbagnick Diop defee porox secteur privé national bi mu yemook Vox Populi xëyee niki tey ji nag lu jëm ci wàllu koom gi ak ni Sénégal di bàyyee xel waa biti réew ngir mën a suqaliku ki nga xam ne rek moo di ministre porte parole bu Sénégal di sare moom nag li mu bëgg daal mooy fexe ba koom gi nekk ci loxol sénégalais yi te gëm na slogan bi nga xam ne rek moom la ñu dippee doxandéem du tabax waaye doomu réew mooy tabax enquête jiglikaay xëy def taxaw seetlu ci eurobond ak bor bi nga xam ne rek moo gàllu ci ndoddu Sénégal yéenekaay bi ne Sénégal googee nag am na lu toll ci 450 milliards ci koppar yoo xam ne jógee na ci marché financier international boobee ne ci diggante jàpp 2024 bu Sénégal nag jaaxaloon na ñii di investisseurs yi Ibrahima Bey di ko feelu ne bor bi nga xam ne rek moo gàllu ci ndoddu Sénégal toll na ci juróom-ñaar fukk ci téeméer boo jël ci wàllu PIB te loolee nag risque la boo xamante ne nii mën naa dem ba jural ñu ay jafe-jafe ngir ñu am ay prêt concessionnel la le quotidien yëglekaay àddu jëmale tey ji nag ci li nga xam ne mooy jàngat bi Alioune amal nag jëm ci état beeg ni muy doxalee Alioune Tine nag di njiital Afrikajom Center di xamle ci biir bi nag ne dafa mel ne ab état pastefien moom la ñu taxawal ci réew Sénégal Ousmane Sonko dafa am ay surcharge légitimité jomaay am ay dette politique tribune yëglekaay feelu ko àdduwaat jëmale ci kàddu yi nga xam ne rek moom la Alioune Tine yëkkati nag di xam ne ni jéego yi nga xam ne rek moom la régime bu bi di taxawal nekkee ci régime bu agressif ci ab état pastefien moom la ñu tàbbi l'info yëglekaay xëyee tey nag ci wàllum proximité saytuwaat lu jëm nag ci wàllu formation yi xeex bi nga xam ne rek moom la ñuy amal jëmale ko ci wàllum délinquance loolee bokk na projet yi nga xam ne rek moom la police bu Sénégal fas yéene taxawal doxal ko ci réew mii démb la ñu doon amal passation de service bi moom Mame Seydou Ndour ma ngay xamle ci biir yëglekaay bi ne dina fexe ba jubóolewaat askan wi ak police nationale bu Sénégal waaye tamit nag daañu fexe li nga xam ne rek askan wi renforcé waat xeex bi jëm ci wàllu délinquance urbaine agression yi nga xam ne rek moom la ñuy amal di dal ci kaw askan wi ak violence yi loolee lépp daan ci wut saafara le Témoin yëglekaay ne directeur police bu yees bi di Mame Seydou Ndour kay fi mu toll nii ma ngay engagé wu ngir jooyantiwaat sécurité bu Sénégal Les Échos yëglekaay àddu jëmale tey ji nag ci coowal Adama Faye mi nga xam ne rek libéré nañu ko démb ginnaaw bi ñu ko placé ci garde à di ko toppee ci lu jëm ci mbirum escroquerie loolee nag moo am ak plaignante boobee nag ci la ñu daal di jëlee mbir yi nag daal di koy classé sans suite le temps moo yëglekaay ne lu jëm ci wàllu escroquerie foncière ca lañ ko doon toppee moom aadama fay nag mu daal di fay lu toll ci cent cinq millions ñu daal di koy libéré Vox Populi xëyee ni tey jii nag ne ginnaaw bi ñu ko defee persona non grata ca UCAD avocat franco espagnol bu Ousmane Sonko bi nag ma nga woon ca Cissé démb moom Juan Branco nag ma nga doon amal procès di chargé kii di Macky Sall ak pouvoir ma waa France ak waa cour bu CEDEAO branco nag ma ngay xam ne ne ñoom ñooñee nag la Sonko ak gouvernement am war a taxaw xeex ak ñoom ci jamono ji ci biir enquête yëglekaay nag ma ngay xam ne ni faaw yoon def liggéeyam ci événement yi nga xam ne rek moo fi amoon ci diggante mars atum 2021 ba juin atum 2023 moom maître Juan Branco nag ne fi mu toll ni nag faaw ñu amal ab cour spéciale boo xam ne rek dañu koy jagleel Macky Sall ak gouvernement am collectif des victimes du régime de l'ex-président Macky Sall nag ñoom ñi ngi exiger ñu amal ab mandat d'arrêt international réew mi quotidien daal di àddu ba tey ci ndaje moom nga xam ne rek nag ñoom avocat yu Sonko doon nañ ko amal niki démb maître Bamba Cissé di xamle ni nag mësuñoo am dossier bu gën a metti dossier bi nga xam ne rek mooy buub Ousmane Sonko addu jëmale ci Sud Quotidien mi nga xam ne rek xëyee na tey jii ci éliminatoire mondial yu 2026 yéene kaay bi ne Sénégal ak RD Congo dañoo mujjee tembo ndam demul ndam dëkku la waral mu ne Sénégal ñàkk na ñaari poñ ak première place bi Sadio Mané ma ngay xamle nag ci biir kaay bi ne faaw ñu soppi suñu système de jeu bu ñu bëggee delluwaat ca place ba ñu nekkoon mbokk